sifflewaat na final poids lourd catégorie 120 kilos dox ci diggante général Malika Ndeysaan ak Libidor général sol na ko général sol na Libidor général sol ko du ko doole wala déet forcer na ko forcer na ko rogganti na ko arbitre woote na ngemb la jàpp waaw waaw nee na général nee na ko sama ngemb la jàpp Ndeysaan Libidor day jël avertissement benn avertissement sortie de libéré ayca ñu ngi waat ci combat bi général Malika Libidor Libidor perte na léegi par équipe mu ngi final waat individuel dox diggante moom ak général Malika plus de cent vingt kilos ndaysaan général sol na ko général sol na ko ñoom ñaar ku ci nekk perte na par équipe ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi nii di xëccoo ndaysaan individuel poids lourd ndaysaan ñoom ñaar a ngi noonu plaqué na ko mu bañ ndeysaan Libidor sol na général biij na ko mu bañ Libidor général Malika ceinture général baa ngay tekkeeku sentir bu tekkeekoo dañ koy atte ndeysaan ndax moom lañ ko mën a identifier moom général Malika ndeysaan waaw waaw dañuy àtte ceinture ba ndaysaan ceinture ba général Malika Libidor ndaysaan ma nga noonu ndaysaan général Libidor ndaysaan arbitre bi sifflé waat na général ngeen jàkkaarloo Libidor moo leen woon ginnaaw kii représenté ci compétition bi Thiès moom Libidor général fatik nday ndaysaan ñu ngi ci final individuel bi ñoom ñaari xale yi ndaysaan ci dëñ dëpp gi la ñu toll ñoom ñaar ndaysaan tël na ko mu bañ général nga koy jëli général nga koy jëli mu bañ ndaysaan Libidor nan la ci wàllu bëre waaye général kenn demul mu des jëli na sol na ko dóor na ko tànk déet <laughs> plaqué bu bañ mu bañ ndaysaan ñoom ñaar du yomb général Libidor Libidor fàqat na ko général bañ na ndaysaan ñaari xale yaa ngi bëre plaqué na ko daan na ko général daan na Libidor général daan na Libidor général daan na Libidor ndeysaan daan na ko